di ñu bàyyi xel fii ci 2STV yi li ñu ko tàmbalee def euh, benn fan ci weeru safar bi mu teroo ak tey jii noonu lañ ko continuer ba bis bi nga xam ne mooy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bisu màggaluk Touba ñu ngi leen ciy nuyu di leen ziyaara di leen ndokkale di leen wax jërë ngeen jëf ci tànn bi ngeen tànn programme 2STV ba fi teewlu lépp lu jëm ci li leen di xibaar li leen mbaa lu leen di plonger au cœur du grand magal de Touba nga xam ne nous avons eu des reporters nous avons eu des débatteurs ci thématique yu uute nous avons dompté l'actualité de telle sorte que kenn ku nekk ci këram fa mu nekk di ñu seetaan mu ngi mel ne ku nekk biir Touba jamono ji may wax ak yéen noonu nag lañ ko fas yéene continuer comme tey moom mooy euh, wuréw a dem na këng waxi mag dem ndëñ tàlli waxi mag jooju sax laa bëggoon ñu tey ndax dañuy tàmbaleek ki woote cant gi mooy Serigne Fallou Mbacké moo ko woote Touba fii waaye baatu màggal bàyyi ko ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul moom mi ne nañ ko santale yàlla boromam ndax lott na ci jëf jooju ñu bëgg a teewlu koo xam ne luñ ñu tuna taarixu réew mi lu ñu na mboorum Sénégal ba xam ci loo xam ne xamuñ ko di ñu ko fàttali bés bu jot boole kook suñu ay valeur ak suñu ay vertu bëgg nañu xam naka la ñu mën a jàngee ci Serigne Touba bu ñu dee ay ndaw mbaa ñu di ay talubeem ci yan jikkoon lañu ñu mën a royee ci seriñ Touba bu dul mbindam bu dul juddoom bu dul yaxal gu mu yaxal alxuraan bu dul jaayante bu mu jaayanteeg tubaab gi Serigne Touba am na ay valeur yoo xam ne ku ci roy doonus gor ba faw te dara du ko euh, deñ dara du ko dindi ki nga xam ne moom laay woowee le gardien du temple en ce qui concerne nos valeurs et nos au Sénégal mooy sa baay Alaaji Taal Ngol Ngol néew na nag ñiy def li muy def ci Sénégal wala ñu am compréhension bi muy am compréhension ci Sénégal waaye koo xam ne am nga wu fit jàkkaarloog aw ndaw ak seen fugg ak seen ñàkk xam nga leen di soññaat naan leen li ngeen nekk baaxut bu ngeen ci jugewul musiba fekk leen ci kooku jàmbaar dëgg a koy def borom fit a koy def ni mu koy faral di waxee ma koy tooñ mooy dabba naba maay mooy pas bi nga xam ne c'est c'est c'est le vieux qu'adore tous les autres vieux parce que euh, tradition yu ancestrale yooyu mu ñuy jéem a inculper tubaab bi dafa mel ne dafay ñàkk xelu ñenn ñi léeg-léeg ba bu paa bi di wax dañ naan ah kii yëfu paa lay wax waaye fekk ne loolu mooy dëgg-dëgg sénégalais nan la Serigne Touba nekkee dëgg-dëgg sénégalais dinañ ci waxtaan ak Baali Taal Ngol Ngol ñu bàyyi ko mu nuyoon teg sénégalais yi ndokkale euh, ci bësu màggal gi ñu ngi lay siyaar góor gi nag euh, tey tey tey laxasaa laxasaa yooti nga. waaw tey moom euh, maa ngi nuyoo Pape di mais dama lay gërëm aussi parce que vraiment. Euh, yow daanaka ñun ñëpp taxawal nga nu ci màggal dem nga ci ruq yeeg ruqaat yi indil nga ñu lu ñu xamul woon leeral nga yu bari yaag Ceddo Murit vraiment jour te félicite parce que gis nga bu ma la gisee ngay doñ doñ ma ni kii comprendre na Serigne Touba parce que Serigne Touba du ay wax Serigne Touba du folklore Serigne Touba pour nga nekk taalibi Serigne Touba d'abord il faut nga nekku su gor il faut que nga gëm yàlla wàkkiirlu ci yàlla bind na sax xasaay bu mu tuddee wàkkiirlu ci yàlla wax ci lu bari sëriñ e Serigne aussi dafa daan wax ni sama karaw gu gàtt gi bu leen ci xool ndax ñun dañ loo coloniser ci tubaab bi ak ci araab bi ba defe nañ ni ku ay noppam xongul karawam gudd amut xam-xam. te sëriñ Touba sut ñooñu ndax ñooñu ak seeni xërëm ak seen lépp dem nañu ba mu yàgg sëriñ Touba nekk aw xal ci seeni loxo ñu bàyyi ko mu dellu si Sénégal moo tax bu may dégg Pape Sidi démb laal nga ci sax ay nit naan màggal dafa xaraam wala bokkaale yàlla ma ni ñi ñan la ñuy waxal xanaa du ñun sëriñ tubaa taalibeem yi nga xam ne ak seexam yi nga xam ne ñoom la formé ñu jaar ci moom. koo ci dem ba tey jii këram képp ku fa yaroo mbaa nga juddoo fa jàngal nañu la lislaam ba li nga ci war a xam lépp nga xam ko ba mën a jaamu yàlla sëriñ Tuubaa wootewul ni kay leen màggal ma daf ni dama lottu ci sant sama borom ndax lim ma defal xam ku dem ba ni ilaya xaadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li kii ni te xam nga ni sëriñ Tuubaa du wax lu ko yàlla waxulowul ku dem benn yàlla defal na ma lu mësul defal kenn te dootu ko defal kenn ba faw kooku ay ay caaxaan taxu koo jóg mais bu fekkente ni te lu ma métti la nag Pape Sidi da gis fii ci biir Touba sax ay taalibe sëriñ Touba yu fi ne di tuddoo sax ay taalibe laay wax ak ay sëti sëriñ Touba am ay mag yu leen defal lavage de servo ba bëgg a génne ci seenum xel ak sëriñ amut ànd ci ak ñoo xam ni dañu ni ay niti diine lañu. te duñu niti diine ay seytaane lañu parce que Serigne Touba kan moo mën a génne fenn fu Serigne bi binde te tàmbaleewul ci sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sëriñ Serigne dem ba ni maa di jaamam maanaam képp kuy jaam ku kuy nekk maanaam di topp yonent bi topp ko doonub surgaam maay seen njiit loolu dafa doyut sëriñ Touba li mënu jàngal mooy liggéey. ak jaamu yàlla amul leneen moo tax bu ma gisee sax ci biir tariixa bi ñuy fo di tëgg di tànqale ma ni ñii dégguñu sëriñ Touba am na dëkk bu sëriñ Touba dem xam nga lu tax fanaanu fa Pape Sidi ku doon fi tasu ku doon fi tasu dong dong moo tax Serigne Touba di takkal ma sama gaal ñu takkal ko gaalam mu dem feneen sëriñ Abdoulahat Mbacké dem na cib dëkk benn waay fanaane jàng bi mu yeewoo mu ni nañ dem siyaar sëñ bi yaakaar ni bu demee sëñ bi day bëgg sëñ Abdou Lahat ni ko li nga fi fanaane biig day boo ko fi naree def tey du ma fi fanaan kon xam ngeen ni bu ma xale yi surtout les enfants man xale yi lay waxal parce que mag bu am samay at wala mu jege ma wala mu romb ma kooku bu xamut boppam dootu ko xam mais xale yi ñoo war a jànge ci Serigne Touba lu baree bari Serigne Touba def na ko booba tout tànk la Serigne Touba bi muy mokkal alxuraan tuut tànk la bi téere yi mu njëkk bind tuut tànk la am na ci yoo xam ni xëy na waaw xëy na xam na ndax Serigne Touba nag Bab Sidi daa bari lu mu bind te kenn génnewul. ah gisee su ko. waaw gis nga ci biir géej gi bi sëriñ bi dem Ndar li mu bind dugal ko ci géej gi kenn mësu koo gis foofee mu newoon ca Gabon. nga xam ne place ba scientifique yëpp nee nañ doomi aadama munu fay nooyi ci jamono jooju lu mat deux jours wala trois jour sëriñ bi am fa cinq nga xam ni am ñax dem na ba day seet ñax mu mu mën a sàqami rek pour def ko ci biir bi loolu lan moo ko waraloon mooy bëgg ñu bàyyi ko mu jaamu yàlla ànd ak ñi ko gëm ñu jaamu tabaraka wa taala topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa baay mm-hmm. am na loo xam ne dafa dafa gane si ndawi réew mi mm-hmm. ci ñaari fan nag la duggee mm-hmm. bi njëkk mooy euh, l'école de Vallière après la démolition de l'école de Khali Amar Fall de l'université de Pire lañu ñu ay personne assimilées maanaam ay nit ñoo xam ne da nga leen lan jàkk ñu nekk ay nit ñu ñuul waaye bu ñu jëfee nga xeeb leen ndax ay servitude ci la ñu dëkk maanaam ay jaami tubaab lañ dama am bërki démb wax ji ma dégg Serigne Mountakha doon ko waxtaan wax wax dëgg yàlla waxtaanu koog man mu ngi ko doon waxtaan ku ñuy wax Mountakha Mbaye ndax dafa am jumaa jum doon décoré du dumaa ji mu ne soxlawu ci maroquinier soxlawu ci marocain soxlawu ci espagnol soxlawu ci kenn ndéem am na ci réew mi ku ko mën kooku lañ koy sant mu def ko. defe naa defaat na exemple boobu ci Masalikul naan dafay am loo xam ne dafay tegtale waa ji mun ah, Muntaxa Mbay daal ne ah, tubaab yu ñuul yi ngay séen ñoom danoo ragal tubaab yu weex yi ba lu ñu wax dañuy sëgg rek ne sii sii loolu dafay tegtale ne aussi ni mu amee ci français wala ni mu amee ci nasaraan si. noonu la amee ci arab bi am na ñoo xam ne tey pour ñu wax euh, Serigne Touba wala jërëjëfe Sëñ Bamba day diis ci ñoom waaye boo leen waxee Cheikhuna na Al Khadim Ibnu Mamor Anta Sali wala ci la ñuy gën a nekkee ci pour ñoom loolu mooy diine en la vérité sonne toujours blanche Serigne Touba dafa démolir loolu ci ngor ci jom foofu laa bëggoon nga waxtaanal ñu fa. waaw xam nga maanaam euh, complexe mooy li gàllankoor doomi aadama surtout gone. mais sëñ Touba loolu la ñu njëkk a dindil complexé parce que ñàkk a mooy nga dem benn Ndar ci jamono <laughs> jooju ñu convoqué la nga yéeg si di dóor ñaari rakk kooku il n'est pas complexé. ku ma woo ci waaw waaw <laughs> xam nga Seexul Xadim daf ñu jàngal gëm sa bopp man Serigne tubaa bu nekkul woon ci l'islam sax déglul li ma la bu baax de maanaam Serigne Touba bu newul woon ci diine l'islam sax ma bëgg ko parce que bëgg naa Nelson Mandela te gëmul yàlla. est-ce que li ma la bu baax mais jaloore ak jëfam moo tax ñu di ko tudd John Fitzgerald Kennedy dañ koy tudd toujours pourtant du jullit donc doomu aadama Serigne Touba lim nu njëkk a jàngal buñ ko xamoon ab arab du nu góondi tubaab waxi nopp waaye nag dinaa la xamal benn affaire lépp loo xamante ni sëriñ Touba jàngal nañu ko suñ ko fi bàyyee perte nañu ndax liggéey ak jaamu yàlla kenn mënu laa waxal ci lislaam lu ko ëpp. loolu keppay lislaam ndax kii nangoo ki jaamu yàlla dana nangoo liggéey te du jël lu mu muumut du wax lu mu xamut du fen du sàcc du wor moo tax sëriñ Touba boo xoolee ñi ko njëkk a dar mooy sëti Biram Njéeme Kumba yi sëti Lat Joor yi ñoo ñoo njëkk a dar parce que Serigne Touba xam lu taxoon mu jox leen ay cër daf ni ñii donn nañ juddu am nañ deret bu ñu duggee ci lislaam ñoo ciy man addis la de waxuma ko. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo moo ni ña manoon ca jaahiliya ja bu ñu duggee ci lislaam ñoo ciy man Cheikh Ibrahima Fall mooy l'exemple type Cheikh Ibrahima Fall mënoon na nekk dameel du Kajoor ma nga dëkk Njabi Fall sa tub mën da siit la du dëgg kon Cheikhul Khadim xam na fi mu def aw jiwoom léegi nag dafa am ñoo xam ne dañ leen a réeral parce que El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh daf doon wax xaw ma Seydi Hadji Malick bu ngeen dematee ci arab yi di fa jàng jàng leen fa xam-xam te bàyyi leen ak seeni jikko. maam Abdoul Aziz maam waaw parce que gis nga arab yii man parce que Pape Sidi xam nga addis léeg-léeg ma déggub addis weddi ko man waa ji xam nga wax na arab man dégguma arab man li sam xel di nangu parce que alquran yàlla def na ko ci xel yëpp lépp lu sam xel xool muy lu rafet lu baax boo demee ci biir alquran fekk ko ci. bu dee lu ñaaw lu bon yow mi ko def xam nga ni def nga lu bon def nga lu ñaaw te boo demee ci alxuraan ñu wax la ko kon Serigne Touba ñi koy diingat dama leen a yërëm ndax ñu gaaw a faatu la ñuy doon ñu bari ay feebar lañuy doon ndax gis nga yàlla lépp lu mu yëkkati yëkkati waaleel ko ko ba gis nga wolof am na baat yu nuy léebal ci wolof boo ko dégloo li mu doon naan yéene néeg la borooma cay fanaan wala mun la taal bu yàlla taal sànni ca mat a gën fay ko nañuy jëfandikoo sunu xel yi ko ci barma yooyu taal bi yàlla taal amul kenn ku ko mën a fay boo ca defee matt dina tàkk boo ca defutug matt dina tàkk léegi nag li ñu war a seet moo di parce que man Pape Sidi léegi léegi ma bàyyi déglu euh, firikat yi ci sunu télé rajo yi de ndax damay gis kuy firi ci diine. di wax ci diine ba ma jàpp ni lii muy wax dëgg la ci moom ba mu yàgg ma seen ko mu wut parti politique waaw ba mu yàgg mu yor parti politique waaw bëri na ci bëri na ci na ci da nga ciy gis koo xam ni day wax ci diine ba mu yàgg mu dugg ci li xew léegi mooy dóori xeer ba mu yàgg ñu woo la musal la loolu lépp du jikkoy nit ku yiw nit ki man lii may wax ak yow Pape Sidi Fall tey jii di 15 septembre 2022 maa ak yow mii di wax nii fii cent ans mën naa am ñu rendre compte devant le le seul juge di tabaraka wa taala li ñuy wax est-ce que mi ngi ci nun wala nekkul ci nun Serigne Touba nag kuy wax lu newul ci yow àndoog moom ku defee ne day def daray bokkaale xamoo Serigne Touba. mais ñu ci bari. ñu ci bari nga baal ma de mais ñu ci bari dañuy dem ci euh, réewi naar yi ne suñu waa dëkk diina ja ñuy dund yiwut jekkut. ay sëriñ la ñu am ay tarixa uh-huh. loolu bokkul ci lislaam utal kow lay daal bu ko defee ñoo ñu nga xam ne dañoo yor ay pétrodollar uh-huh. maanaam pétrole bi bari ci ñoom uh-huh. ñu jox leen ay financement ñu ne dañuy tabax jàkka bu ñu dikkee seen yéene bi njëkk mooy jéem a toj wala ñu jéem a démolir pas-pasu nit ñi gëm Seydi Aj Malick mbaa ñi nga xam ne dañu jokk ci njabootu Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass wala ñu bokk ci kër Serigne Touba ñu leen di tuddee ñiy tuddee woo sofiyanke ñu naan axlu ñu leen di woowee ñoom ñiy def loolu en général dañ leen di woowee axlu biddaa nee nañ ñoom daal ay biddaa rek la ñuy def loolu du diine mais cest ñii ngay wax ñooy def axlu biddaa am na jamono tubaab bi ngannaayu dugg ci réew mi fekk fi ceddo di duma naan dugg leen ci diine ji ndax mooy diine civilisatrice sëriñ si ñoom ut méthode bu douce ku ci mel ne sëriñ Touba Seydi Aj Malik jaare fu ne maam ba jaxu ba maam El Hadji Omar Foutiou Tall ñu fexe ba tey quatre-vingt-quinze pour cent de la population sénégalaise elle est musulmane ou même plus donc le combat était gagné avant leur naissance mm-hmm. donc ñooñu mag ñooñu bu ñu gañewuloon combat boobu yow doo judd ci réew mi mm-hmm. ba nekk jullit bay ut ñoo xeex mais Pape Sidi sax ñooñu di wax waaw bi ñuy samp l'islam bi bi xaali Amar Fall di samp 1603 la grande la première université coranique du Sénégal ñoom fan la seen maam nekkoon de l'Afrique de l'Afrique waaw ana seen seen maam booba anamu moom bi Cheikhul Khadim di jóge fii ñu di ko déporté est-ce que àndoon naa kenn ku dul yàlla ñoom booba ana seen maam ana seen maam donc nit boo maandoo sax xam nga sëriñ Touba néewul kenn par force kaay ànd ak man xam nga sëriñ Touba dimension bi dafa romb tariixa murit sëriñ Touba wootewul tariixa sëriñ Touba ñi képp kuy di jullit te bëgg a yegg ci yàlla daf la woo ngeen ànd loolu mooy muridisme muridullahi du dëgg mais sëriñ Touba li mu woote romb na tarixa sëriñ Touba dafa wax ni yéen ñi nam ma egg fa yàlla ñëw leen ñu ànd <coughs> loolu lu ci araam am dafa am beneen yàlla ñoom bu nuy bu nuy bu dul bu bi ñu xam jàlla jalaalu en tout cas bu fekkee ki bind samawaati wal ard moom la ñuy jaamu ñoom ahlu xawma lan yooyu Sëriñ Tuubaa moom jiitu na leen ca raw na leen ca am na ca ñoom luñ mënta am dëkk bi yaa cent ans boo fi basaana ñëw ay ay ay ay ay ab àll nga fi fekk fi xam nga ab àll ab àll nga fi doon fekk. jumaa ji nekk dégg na mbaarum ngeer a fi nekk mbaarum ngeer a fi newoon. waaw fii Cheikhul Khadim yàlla moo ko tànnal place bi moom sëñ Touba bind na ci jumaa ji te jumaa ji kenn tàmbaliwu ko <laughs> tabax bi wax na ko. ci mat bul faw seen nii jumaa ji mel ni yëpp. lépp sëñ Touba wax na ko. aaral ko boppam Serigne Moustapha bi fi Cheikhul Khadim jógee tubaab bi bëggoon nañ koo jéem a seet ba xam waaye xam nga doomi kaani garab ga garab ga doom ba ko gën a wex bi ñu lambee. xam ni gën a wax garab gi. moo gën a wax garab gi wallaay dëgg la te lii lii sotti lépp si après Serigne Touba. Mhm. bi Serigne Touba làqoo la la soog a sotti. xam nga ni loolu lii am na loo xam ni juróom-ñaari soroor yii waatal naa la ci yàlla ni ay caaxaan taxut ñu sabb ko fi. am fo indiwu ko fi. weddi yàlla indiwu ko fi. diingat Mouhamed indiwu ko fi. xam nga gars yi lu war a def seen këyit seen téere yooyu ak seen jàng yooyu. ñu taal ko ndax actuellement ku mel ni man gëmatul lu baree baree bari ci lu diine di wax ci réew man parce que man nag jàng naa tuuti alxuraan mënumaa firi waaye ba alaaji Ibrahima Sakho di firi ci réew mi ak alaaji Moustapha Guèye la ma doon dégg mu may jàngal l'islam dong bokkute kuy kuy kuy addis ba mu yàgg mu naan parti politique bi moo gën beeg euh, kii yooyu doxut <laughs> yooyu doxut xam nga lu dox uh-huh. ab murit du fo Serigne Touba bëggul fo sëriñ Touba lépp lu mu am daf ko mérito daf ko mérito te gis nga Baye Baye Sidi boo ba Baye boo gisee ma bëgg ma bëgg lépp lu may am ma sonn ci. Mhm. damaa xam aw ñaq aw ñaq li muy def ci doomu aadama mhm. maanaam li nga ñaq di ko dundee. mooy fagg lu lew. fagg lu lew. waaw Serigne Touba daf ko yàgg a def xanaa xamoon ne Serigne Touba yorul dara. yorul woon dara ci xaalis. déedéet daanaka Cheikh Ibra ak maam Cheikh Anta ko daan dimbali. ak maam Thierno surtout ak maam son plus grand bailleur c' était Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Ibra ëppoon xaalis ci yoonu Mouride. cinquante boutique ndar. voilà ak i kër ndar ak i bay lu ne am na ko. fa am doon ca Ndakaaru jeex na donc Serigne Touba ñi àndoon ak moom ki waxuma sax waxi Serigne Touba mais ngan mu toll ni Cheikh Ibra Fall képp képp képp na doy na na royof. doy na kéemaan. boole koog Cheikh ñu bari danoo danoo juum ci moom. ndax euh, Cheikh ku yaakaar ni doowul jaamu yàlla wala daawul julli xamoo Cheikh Ibra bi bind na kaamilu alquran Cheikh Ibra bind na ba tàyyi. Mm-hmm. Cheikh Ibra ku bëggoonu jaamu yàlla la. Mm-hmm. jaamu yàlla gi nag daf koo tegoon ci liggéey def ci yàlla. wàllu ndey buur. waaw wàllu baay buur. buur waaw. liggéey defal def ci yàlla Cheikh Ibra bari na dëkk yoo xamante ni sëriñ Touba ko sanculu wala ka fa sanc moo ko fa yebal Cheikh fexe ba ñu defaral ko dëkk defaral koy kër defaral koy wanag defaral ko lépp ba mu mën a jël dongo yu bari di leen di leen jàngal alquran di leen jàngal téere yi di leen sëriñ Touba amul sëñ Touba amutum saat am am saarit sëñ Touba amu doomam yi est-ce que leen. ku mel ni sëñ Moustapha li mu fi def ci jamono jooju nga xam ne loo lekk képp dalaa të ngay sémb ay 5 millions d'euros nga yaakaar ni loolu euh, caaxaan a koy yeggale xoolal bi fi sëñ Modou Moustapha jógee 1968 1900 1968. non non après sëñ Modou 1945 1945 waaw. Serigne Fallou ñëw ba 1968. waaw Serigne Fallou daje feeg jamono joo xam ne aw maral am na fi lu ne am na fi. dem nañ ba da àll bi boo ci masaana dugg dangay gis nag yi dee xar yi dee ndax amuñu lu ñu lekk mu ni jumaa ji laa bëgg a yeggale ci jamono ju fa dara newul wallaahi lii lépp murit bay ko ci seeni loxo bay ko de lii di dugub lii di gerte lii di ñebbe lu ñu jaay indil Serigne Touba ñoo yenu xeer yi indi ko ñoo yenu suuf si indi ko fii. ndox mi ndox mi ñoo ko fi indi. ñoo ko jëlee ji fu ne ci dëkk yi. dégg nga te ba tey te ba tey Serigne Touba mi ngi ci suuf depuis 1927 waaye mi ngi tabax ba léegi Masaalikul Jinaan barke démb la pare benn un franc bu ci état def amul lépp taalibe Serigne Touba yee ko tabax nga defee ni Serigne Touba moomu ay caaxaankat la la lay wër. laay ah laay xoolal ma waa ji ak tablom bi wax leen ko mu taxaw révolution pacifique euh, waaw waaw taxawal noonu. tableau bi c'est très joli waaw waaw ndeysaan waaw kay kon ñi seetaan c'est l'accomplissement d'un travail de gis nga am na beneen affaire Pape Sid waaw c'est-à-dire pour dire vrai sénégalais bu ñu déggoon Serigne Touba bu ñu gis nga autosuffisance alimentaire bii nii wax ci yoonu Mouride Serigne Touba rek leen na ko ci bu yàgg da ngay dem ci àll boo xam ne kenn newu fa doomu sëriñ tubaa dem fa gor fa lu war a mat ay ñaar fukki kilomètre. wala ki mu yar maam Thierno Ibra Faty. jeex na gor ko wutu jiw ànd ak murit bay ko u yeggee mu mën a dundal dëkk bi ba wa ba nawet ñëwaat loolu du mooy autosuffisance alimentaire. wallaay Serigne Touba amul doom bu ko defu. am luñ ci jaay mën cee tabax. ak ah, exact gis nga xel koom la daan ñore. bari na kër yu ne fii ci Touba xel koo ma leen yoroon de. wallaahi yaa ngi may dégg. kon Serigne Touba. waaw lim nu jàngal mooy liggéey ak jaamu yàlla diggante boobu nag lu ci waay dugal yaa ko ci dugal sëriñ bi bàyyiwu ko fi dénkaane wu ko santaane wu ko koo gis muy sax ci yoonu murit di yori ndënd di tëgg di góor ña ak jigéen ña jaxasoo barke Rasulullaahi bu fi sëñ Touba dellu si woon ni ko dàq daal demal wutit sëriñ feneen Serigne Touba du fo du folu du folu xale yi yéen taalibe yi bu ngeen demee ba ñibbi ci seen i dëkk xam leen ni Cheikhul Khadim seen sëriñ daawul fanaan fu ñuy tëggee ndënd daawul tànqale it guddi ndax yow boo xa waree liggéey koñ boo dëkk di yuuxu ba quatre heures kenn du nelaw nga defee ni yaa yaa ak sëñ ànd da ngay nax sa bopp dégg waxu tudduma kenn de sëñ bi bu fi tudd kenn <laughs> bu fi tudd li ñuy wax moo di sëriñ Touba àndul ak folklore. waaw waaw waaw kay Serigne foluwul. waaw bàyyi leen pom yi ngeen dugal ci tariixa murit parce que amul njariñ li am njariñ moo di fexe ba bañ faat wax fexe ba sa yaari way jur nga téye leen ndax Serigne Touba ku ma sa ñëw ci moom bu la laajee ana sa yaari way jur nga ni ko ñu nga fa mu ne la dellul ca ñoom. nga toppatoo leen ndax yàlla moo wax ci alxuraan ni bu ngeen ma jaamoo ba noppi dem toppi leen seen yaari waajur moo tax sëriñ Touba ku ànd ak moom d'abord boo ca bëggee jariñu day fekk nga yóbbaale sa ngërëmul waajur sëñ bi mën laa defar waaye ku waajuram muulu gërëmu ko santu ko boo demee ci sëñ Touba yi dara du la ko fa jox ndax koo yëg si mu di la dàq <laughs> yaru leen te bu leen kenn dugal ci bu leen kenn dugal ci taal seenum réew amu leen lu dul Sénégal te dëkk bii bu ëllëgee man mii damay dem kii day dem kee day dem mais yéen xanaa ku ne boo sañoon boo dee sa dooma lay taxaw. wallaahi waaw sa doom bi lay taxaw nag bu fekkee taal na kër gi nga tabaxoon fu muy dëkk kon nag ngeen jéem a xoolaat bu baax taxawaay yi. jërëjëf Saba ok ñu ngi dellu si waat ci waxtaan wi léegi nga fàttali ñu ni amee woon relation bu euh, bu dëgër bu amoon ci diggante sëriñ ak buur. buur mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon avant ñuy indil administration coloniale wala constitution bi ñuy wax dañu naan dañuy am président de la république booba jamono amoon nañu ay buur amoon nañu ay jaraaf amoon nañu ay ngalandu amoon nañu ay ministre amoon nañu ay gouverneur ci suñu ay façon xeeti waxin lakk am na it histoire bu euh, rëy bu amoon ci diggante mbaaxaan buur siin ak Serigne Touba daañu ci dellu si waat léegi nga wan ñu naka la maam Maxaram Mbàkke def ba am fii nga xam ne moo di Mbàkke Bari ci loxol ban buur la bàyyi ko parce que histoire u Sénégal bu buñ ko xamul histoire u keneen bu ñu ko xamee du ñu amal njariñ il faut qu'on s'enracine ba nit buy wax ak ñun ñu ne ko ñun xam nañ ki ñu doon xam nañ suñu bopp defe naa loolu dafay gën a dëgëral suñu identité te yoonu mu murit amul lu ko gën a rëy bërki démb anecdote dama gis benn gaan mu def benn tiktok di wax ne euh, Touba am na ay dëkk yu neex comme Daaru Naïm Daaru Daarul Hudóot Daarul Xudóos waaye ah, yeneen quartier yi moom ay aloom nga ngay dégg ak ay ay ay derrière ma ne ko loolooy def différence bi ah loolu c'est ça qui fait la la particularité de Touba da ngay dégg ne lii lan la aloom nga ñu ne la aloom garab la guy sax ca njëreem mbaa ca Touba nii la mel nangam nangam donc loolu je pense que c'est une identité te yoonu murit yoonu murit dañ koy def ci col ko def ko ci waxin def ko ci jëfin mais xam nga Pape Sidi Touba ah. Touba du am ay almadi ki Mermoz. <laughs> Ah, déedéet. Touba ay Daaru Salaam. Daaru Karim. Madiana. Ah, ay ngëlëmu. ay ngëlëmu <laughs> mais Pape Sidi da wax point bu am solo. waaw maanaam euh, li indi relation li indi sax mbàkke mbàkke yi toog Kajoor ak Bawol lu yàgg la dafa am benn jamono dameel bu ñuy wax Amari Ngoone Ndella Kumba ma nga nekkoon dëkk bu ñuy wax Barjàll ca ginnaaw Mérina Ndakaar dafa doon xeex ak sëriñ xeex ak Malamine Sarr Malamine saar jóge ca génn àdduna mamaaram ñëw jaale si ko ni day yegg bar jàll bi muy dem sax ñu bari ñu ngi ko naan ah sëñ bi tee ngaa bañ a dem parce que kee daal moom ginnaaw rey na suñ mbokk mi nangam nangam mu leen damay dem ah bi mu demee waxtaan ak moom damel bi ni ko yow day mbake bu bu sëriñ sépp meloon ni yow du ma ñoom sax bay weranteeg ñoom ba rey waaye nag damaa bëgg dëkk léegi da ngay dem ba ca tund wa ca laa ca bawol la ko fa tàmbalee ba kàdd ballo ji di frontière jolof ak kajoor loolu lépp fu la neex sancal may naa la ko loolu dameel amari ngoone ndeela kumba moo ko def moo ko may ko may maam maaram Mbacke mu sanc Mbacke sanc dëkk yi ngay gis yépp dameel yooyu ñoo ñoo ko ñoo ko jox Mbacke Mbacke yi moo tax léeg-léeg bu màggal amee damay wax samay émission ni leen amari ngoone ndeela kumba war nañ koy waxtaane ci màggal gi parce que ku mat a rendre hommage la ndax c'est grâce à lui que tey jii ñi ëpp ci Kajoor bëgg Sëriñ Tuuba bëgg bëgg yoonu murit ndax jamono jooju moom mooy dameel di teeñ moo yilif Kajoor moo yilif Bawol waaye xam nga ni la tàmbalee Bawol ba kadd balloo ji mu ni leen fu la neex loola neex jëlal may naa la ko kooka bu ñuy màggal tey jii Tuuba kan moo tax ñu fi sant yàlla muy xaadimu rasul te sant Mbàkke war na ñuy fàttaliku dameel Amari Ngoone Ndeela ko yal na yàlla woyofal suuf ci kawam parce que nag gis nga bi mu mayee maam maaram affaire bi am na dagam bu ko ne ah dameel def nga lu ëpp de ab doxandéem nga naan ko tàmbalee fii ba kàdd baloo ji mu ni ko fu ko neex na dagg maak ko may kon kooku kenn waru ko et am na ñooñ sax dañ dañuy minimiser affaire bi daal pour ñoom dañuy minimiser ni waa ji lim def c'est pas un te c'est un acte à à parce que booba moo yilif maam maaram cosaanoowul Kajoor cosaanoowul Bawol tey la fi dëkk te grâce à maam maaram mais grâce à Amari Ngoone Ndella Kumba ak dogalub sunu borom tabaraka wa taala. macha allah suñu ay reporter ñu ngi sur le terrain ngir lépp lu aju ci màggal gi ñu mën koo partager ak yéen. waxtaan wi neex na sa bàyyi taal ngol ngol mu ngi mu ngi yaramam mu ngi door a tàng donc euh, restez avec nous dafa am loo xam ne dañ ko ciy dolli ren euh, defe naa mooy initiative bu mag bi mooy ñi nga xam ne ñooy doomi Sénégal yi nekk bitim réew ñii ñu nga Guinée ñii ñu nga Gambie ñii ñu nga Brésil ñii ñu nga itali ñii ñu nga États-Unis dañuy màggal waaye foofa màggal ya ñuy màggal dañuy bëgg di ko wan Sénégal ñëpp di gis ne màggaluk sëñ mbamba gi foo dem ci àdduna murit fu mu nekk daf koy def ba pare ñamuy muy berndeel du ñu sax ay julli en général 28 murit ñooy nekk ci dëkk ba jaayante sasoo ba togg ay bernde yu yaatu dem fekk ay SDF wala ñu fekk ay homeless comme on ci anglais jox leen ay ñam ne leen tey dañuy sant yàlla jaarale ko ci bernde li ko dalee ci euh, yi ba baa ñu yegg ci euh, gëléem te loolu ñu ngi ci jublu santale Serigne Touba boromam ci bés bi nga xam ne la nattu yi jeex bés bi lañ ko doon tegee nattu yi loolu nag moo waral ñu ubbi benn numéro boo xam ne numéro ku ma sonal la li ma koy joxe sax dama ciy kontaan mooy numéro Omar Jabel Diop ku am vidéo rek waaw. Omar suma voilà ku am vidéo rek mun nga ko ci yónnee boo nekkee bitim réew bëgg sa euh, màggal jàll seeni bernde seeni kuréel seeni jàngu alxuraan seeni i sañseek seen seen bisu fet daal comme bis bi bisu cant la. dañu sellal ko nag. waaw te ñu sellal ko. dañu ah, sellal ko nag non dañ koy sellal. la yónnee ay folklore de. non non du am folklore incha allah du am folklore. mën ngeen a yónnee seen ay vidéo ci 77 415 61 38 77 415 61 38 yónnee leen ñu ay vidéo s'il vous plaît de qualité ci kanam tuuti dinañ commencé jàllale vidéo yi parce que waa Angleterre ñoom defe naa yónnee nañ seen bos. waa ginne it gis naa leen ñu ngay góorgóorlu ca vidéo ya waaye bu gënee leer gën a neex euh, ndax tuubaa gi ñu ne dafa am koo xam ne moom mooy Alaaji Njaay ci Touba mooy taal ngol-ngol ci tuubaa mooy monsieur mooy madame Ndiaye loo bëgg ci Touba boo jaarut ci moom jaaroo ci Bekaay njaay du sotti kooku mooy Pape Sayer Pape Sayer nag ngelamu la dëkk ngelamu mooy fas wi Serigne Touba euh, waroon moomoon moomaloon boppam tuddee ko ngelamu ba fas wa génne àdduna fañ ko suul foofu la ñu dëkk tey moom la ñu tuddee quartier boobu la ñu tuddee Ngélémou mu nekk nag jàmbaar parce que c'est pas évident Pape Sayer déjà félicitations pour le travail remarquable allier la sainteté de cette ville à l'information qui n'est pas toujours de meilleures des fois mu am ay njombe am ay tooxidono trouver le juste milieu l'équilibre et pouvoir avoir la satisfaction et des kilifa de la cité et des euh, et des sénégalais waaw saa baay sénégalais yi toog bëgga xam li xew Touba nga jox leen ko ci fidèlement te doo frustré benn kilifa doo wax lenn lu ñu naan ay waay ki dëkk Touba njombe jëm wax wax dëgg yàlla loolu il faut être professionnel il faut être grand il faut être vraiment expérimenté pour le fair donc on tenait vraiment à te féliciter par rapport à ça ñu bàyyi la nga nuyonteeg saa baay ak ñiy seetaan. jërëjëf euh, Pape Sidi jërëjëf euh, am lool mbégte ak contentement ci kàddu yu am solo yi nga xam ne booba ak léegi yéen a ngi ko fi yëkkati te lépp rek jëm ci wuy si woote bi nga xam ne Serigne Touba Cheikhul Khadim moo ko woote kon ñuy nuyu mbooleem ñi nga xam ne 2S la ñu taamu te nag du nu ko rëccu ndax li nga xam moom la nu bëgg te itam na mu jaare yoon moom la ñuy am fii ci lépp lu soxal na réew mi àdduna sax lay wax rawatina nag dëkk bu sell bi di Touba daf ci am particularité ndax taxawaay bu am solo bi nga xam ne 2S def na ko ci yàgg na koo def mu doon loo xam ne lu am solo la kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu nag taxawaay bi ndax wax dëgg yàlla itam ah, booba ak léegi ñu wax ne weeru safar wi feeñ na 2S li ñu ciy def. kenn umpale wu ko doon na taxawaay bu am solo boo xam ne Pape Sidi ñu la ci ndokkeel yow bu baax yaakaar naa ne remerciement félicitations yi ngay wax euh, yow yaa ci ëppale mérite ndax taxawaay bu am solo bi nga xam ne yaa ngi ko ci def ku dégg euh, Pape Sidi euh, di wax ci yoon wi da ngay xam ne ab taalibe ku bokk ci yoon wi moom mooy wax ndax xol bi ci boppam xol buy wax ki koy dégg dafa am loo xam moom lay def ci moom kon. vraiment ñu la ci remercier bu baax di la ñaanal sëriñ bi tax ngay liggéey ah, yàlla na defal ndam li nga ci yaakaar yàlla na la ko defal El Hadj yooyu tam ñu lay jaajëfal bu baax ndax mboor dafa doon lu am solo ci ab société mboor dafa doon lu am solo ci ab société ndax dana tax askan wi am ay kenn yoo xam ne danañ ci mën a sukkandiku ngir mën a jëm ca kanam te lii ngay fàttaliku. dafa baax ci ndaw ñi ñu mën a xam démb li xewoon su ko defee ci la ñuy mën a sukkandiku mën a jëmal tey waaye tam mën a waajal ëllëg kon nag ñu la ci ndokkeel bu baax a baax di ñaan rek yàlla gën a nàmm sa xel gën laa bàyyi sa xel bàyyi la sa kattan ba lii njëriñ askan wi nga yàgg di leen ko jox président directeur général ak PDG ñu ngi koy jaajëfal ndax lu tax ñu di ko wax mooy sagal gi nga xam ne dafa ñu ko sagal ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na ñun ñoo représenté 2S ci région de Diourbel ndax li ko waral mooy saabu Touba soxla saabu yoonu murid soxlaa du ca des ginnaaw te ñiy jiitu lay bokk firnde li saa su ne ñu ngi koy rappelé màggalu Touba am na nu mu demee woon ci euh, communication médiatisation bi am na nu mu demee woon waaye 2S ba mu ci duggee la lépp soppeeku njëkkante bi ñëw ndax xam nañ ne fii ñu def kat fi la ñu war a def kon vraiment ndokkale euh, président euh, El Hadj Ndiaye ak madame Ndiaye taxawaay ba am solo bi xam ñu ngi koy def kon Pape Sidi yaakaar naa ne daal. dama lay préciser. xam nga sànq yaa ngi wax euh, quartier euh, Pape Saer. Ngelamu. Ngelamu. xam nga murit. Euh, dañoo bëgg sëñ Tuubaa bu bëgg léppam. bëgg sax jina xam. Mm. wallaahi gis nga man sama sëriñ mooy sëriñ Murtada moom sëriñ Fallou. Mm-hmm. xam nga yaayam kuñ ko tudde Muwaayib. jumaa ji jumaa ji. jumaa ji lañ tuddee soxna jumaa sëy. ndeysaan moo jur sëriñ Murtada moom sëñ Fallou. am na doomam maami Serigne Mourtada am na doomam jum tudde Sindiidi mhm. am na doom jum tudde Muhaayibu kon nga mu wér la ni maanaam murit mhm. dafa sànniwul dara rey Serigne Touba déedéet loolu nag pas-pas la gis loolu li la Pape li Pape Sayer wax mhm. mu ni sooy wax xam nga yow ay rappeur laa daan gis ngay waxal ak ñoom seen gaa yooyu dégg nga léttoog ñuy takki jaaro uh-huh. mais xam nga lu tax nga mën a wax ci yoonu murit parce que taalibe nga li taalibe yëg ngay yëg soo koy wax parce bu doon ay tappale man ndax man yàlla may na ma benn xam-xam bu jafe. Mm-hmm. mooy kanam gu ma jàkkaar loolu bu waxee dëgg ma xam ko. Mm-hmm. buy fen ma xam loolu yombul la xam nga. mais technique la bu ma sama papa jàngal booba xalel la dañoo toogoon maak sama benn xarit ñuy waxtaan bi mu demee sama bàyyi ni ma sa xarit bii dey bu ma boo mën dem ci bokkam nga wax leen ñu faji ko parce que gis naa ci moom xatu dof 15 ans après waa ji def taatu neen ci biir dëkk donc am na lool ci kanam bu nit kiy wax dëgg di nga xam su dee fabriqué di nga xam. moo tax bu ma nit di fen dama koy yërëm ndax da la sëñ Abdou Lahat doon wax naan booy wax booy wax di ma fen malaaka bi ma naan day fen day fen damay defen sax dégg nga ko ba damay am kersa <laughs> voilà sa euh, jërëjëf mhm. moom tamit euh, franchement lu waxadi waxadi wax rôle bu essentiel bi muy joué si Sénégal mhm. nga bokk ak moom conviction wala nga ñàkk ak bokk ak moom conviction mhm. am na loo xam ne ndabal ñëpp lañ ko war a yàq mooy ngor jom fit fulla gëm sa bopp bëgg sa réew te waxam yëpp gisuma ko mu génn lii nañu fonk réew mi nañu teel a yeewu liggéeyal ko suñ bopp je que yooyu ay mbir la yoo xam ne il faut que mag ñu mel ni moom boo demee États-Unis ñi gën a def talk show yi gën a mag ni taal ngol-ngol la ñuy def dañuy xëy toog ci télé mbara ñu toog ci rajo di def euh, xaw ma morning glory kenn rek mooy taxaw def show show boobu muy def nag morning glory show yooyu moom la taal ngol ngol di def xay na sénégalais yi comprendre guñ ko mm-hmm. mais peut-être avec le temps seen culture générale bu gën a yaatu ñu bari dinañ comprendre li muy def mais ci actualité ba tey jamono jii ñuy màggal mm-hmm. Pape Sayer euh, yéen taskatu xibaar yi jot ngeen a jonjog autorité yi mm-hmm. Touba ci kanam def nañ seen kéemtalaay kattan waaye Touba ñaari problème mu ndox fi am mooy ndox bi taa taw a dem ak ndox bi nga xam ne boo ubbee robinet bi doo ko gis mhm. tey man résidence Cheikhoul Khadim laa logé man foofu laa dëkk ci biir kër Serigne Touba gi mhm. mais dañu xëy bëgg a sangu ubbi robinet mu tëj mhm. dañu obligé dem jënd pagu ndox pour mën a sëlmu pour yeeslu rek mën a ñëw nekk ci liggéey bi te imaginel boo nekkee biir kër Serigne Touba jàkkaarloog jumaa ji booy dund kon ñi nekk ci biir Touba ban jafe-jafe dund ci ndox bi les autorités ont-ils euh, fait un CRD par rapport à l'eau avant ñu yegg si ci. loolu Pape yi li ma lay waxal mooy euh, préparatif bu màggal bi bu ñu koy xool def nañu ci euh, cinq rencontres am na CLD muy comité local de développement boo xam ne le sous-préfet de Ndam moom moo ko présider boobu pratiquement mën naa wax ne dix tours d'horloge waxtaane nañu ko fukki waxtu lëmm yoo xam ne toog nanu ndox mi courant bi wér gi yaram bi pàcc buy laal ci màggal gi ñu waxtaane ko loolu bi ñu koy def daanaka ci ay 4 mois la ñu tolloon moo desoon ci màggal gi ñu pare ca teg ci un mois ñu def CDD muy comité départemental de développement le préfet du département moo ko présidé woon liñ doon waxtaane fee weer bi ci topp ñu xool fan lañ ca toll ndax am nay jéego waaw wala déet ñu tegaat ci beneen weer ñu def le CRD muy comité régional de développement le gouverneur moo ko présidé loolu itam suite bi lay doon ndax CLD ba CRD bi lañ ci waxtaane woon ndax am nay jéego waaw wala déet loolu lañ ci doon waxtaane gouvernance Diourbel lañ ko doon defee ñu parewaat ñëpp dem dakaar muy réunion nationale bi nga xam ne la ministre de l'intérieur moom moo ko doon présidé nga xam ne li waxoon waxoon ci CLD bi wax ko ci CDD bi wax ko ci CRD ba lañ doon xool ndax loola wax dëgg yàlla ña nga cay dox waaw wala déet loolu lañ doon xayma ba ñu noppee yàggul matu sax une semaine ñëw nañ ci résidence bi mooy réunion bu mujj bi réunion d'évaluation la ñu ko tuddee. loolu kilifa yi bi ñu déggee ñoom nee nañu def nañu ci quatre vingt pour cent ci réalisation li nga xam ne moom la ñu diggee woon def nañ de loolu moom mën nañu ko wax ndax liy firnde li mooy ndoxum taw bi nga xam ne gënal nañoo jaaxal ndox yi daanaka yi fi nekkoon yu ëpp manqué nanu ko ba daanaka yoon yi mën nañu koo jëfandikoo ndax jafe-jafe la woon ci biir dëkk bi waaye nag taw bi mu tawaat indi na ab jafe-jafe boo xam ne daanaka dem ak dikk moom problème la ci Touba sareet yi nga xam ne dañu leen daan wàcce carrément tali bi bi yoon mënatuñoo wàcc tali bi ñoo ak oto yi ñoo koy bokk kon déjà problème a ngi noonu beneen problème bi nga souligné léegi muy ndox bi boobu moo mooy la plus grande équation bi nga xam ne Touba moom lay rencontré lay wax ji mooy li fi nekk ci ay forage li ko manqué 40 bariwul li manqué quarante forage Touba bariwul. mais beneen problème bi am mooy problème de recensement. pour ñu xam population bi ñaata la ñu mën a jox ndox. dina dinaa fi ñëw. parce que loolu problème aussi problème bu mag la dinaa fi ñëw. léegi ndox ndox bi ci lay wax ndox bi. presque ngay wax quarante forage te booy xool mbuur xaw ma ñu ngi wax na ay benn forage ñaari forage moo fa nekk te Mbour xanaa population bu Touba ëpp ko 20 fois xanaa. fii 40 forage nekk fii mënuñu am ndox correctement c'est quoi le problème. mais est-ce que est-ce fii ñu ngi fay ndox. waaw ñi ngi fay ndox c'est un peu relatif amul lenn lu ñuy maye ci àdduna. déedéet na dañ naan taalibe bi nga xam ne moom moo fi nekk. génnewul di fay ab facture boo xam ne moom lay fay waaye nag xëy na kenn kii am na kuy barkeelu am na koo xam ne ma ngi génne am na kilifa goo xam ne génne na ay millions tabax forage. kon loolu bu ñu koy xool mën nañoo wax ne xëy na taali du par taalibe la ñuy wax ne mooy fay waaye nag ñi ngi participer. waaye nag sëriñ bi itam mi ngi ci dugal loxoom état bi mi ngi ci dugal loxoom loolu beneen problème la beneen équation la nan la ñu mën a organiser woon nag loolu mooy li jara xool ñu bañ a bàyyi rek ba màggal jot si ñu dikk def ab daje waxtaan ne ndox mi lii jéem a naxante am na sax itam ñu ci tudd ay sabotage ndax des fois nga gis ku ne na wan bee dañu koo tëj lee dañu ko tëj mais loolu yëpp organisation lay laaj man nag damay wax ne li nga xam moom moo ci war a am dëgg dëgg dëgg mooy yëf yi ni Serigne Ousmane Mbacké mi coordonnateur général bu commission yi nga xam ñoo nekk ci màggal gi li mu waxee mooy màggalu Touba ñeenti weer du ko waajal. ñeenti weer du ko waajal tey bu ñu doon wax waajaayu màggal Touba dëgg dëgg bu ñu bëggee mu correct suba lañ ko war a commencé suba tey la màggal gi suba lañ ko war a commencé booy xool travaux yi nga xam ne ñoo fi nekk daanaka balaa nga gis muy métti rek dañ naan des na un mois des na 15 jours dootoo mën a jaar fenn ñi ngay gas fee te dañuy wax bu ñuy def CRD yi bu un mois jotatee bu desee un mois may duñ kenn kuy gas te booba la ñu gën a mën a gas kon nag loolu des na ba tey suivi bi nga xam ne war nañ ko mën a xool nous sommes pas des nihilistes waxuñu defuñu dara déedéet def nañu de def nañu bu baax a baax a baax waaye nag organisation bi vraiment moom moo des li nga wax ci recensement bi lu solo la Touba tey bu ñu xool chiffre officiel yi xam ne moom moo fi nekk matul un million ay huit cent mille neuf cent mille la ñuy wax ne moom mooy yeewoo Touba loolu xam nga ne waxuma ku ku xam waaye kuy xool donc xam ne loolu doonu chiffre yu réel loolu nag du ma incriminer waa ANSD yi nga xam ñoo def recensement bi mais ñun ñi dëkk Touba le plus grand problème ñun la ñun la Pape Serre day nekk këram yor fa fanweeri nit yoo xam ne ñoom lay dundal ñu dikk di def recensement mun leen ñeent fi nekk loolooy am. loolu loolu la ñuy dund loolu mooy li am def recensement waaw góor gi ñaata nit a fi nekk mu ne looy doyee loolu jeex na jeex na nga ne ko dañu bëgg a xam jeex na tali yiñ leen di defar jeex na lamp yi ñu leen di indil ndox mi nu muy yegsee mu ne la ah ndax am nga ci ndigalu sëñ bi mhm. nga ne ko waaw xelam dalul loo ñuy wàññee googu mu la waxoon loolu lay wax fanweeri nit a dëkk ci kër gi ñeenti jabar la am jabar ju nekk am na juróomi doom yu mag juróomi doom yi ñeent yëpp ku nekk am na soxna soxna yi am ay tuut tànk ñëpp a ngi ci kër gi boo ko laajee ñaata nit a fi dëkk mu ne la ñeent juróom ñeent juróom ah ci des ku leen di dundal loolu dañ koy dañuy def sensibilisation yi ñun souvent di leen di leen wax ne xam nga lu ñu jël exemple mooy les méthodes de l'État qui doivent être efficaces à Dakar bokkul ak méthode bi efficace fii tuba na ngay waxee ña nga xam ne mhm. ñoom dañoo dem école jàng fii njàng mi gën a kawe ca daara ji lañ koy séntoo séntoo wuñ ko ci ci école bi fii ki ñu wekk du président de la république fii ki ñu wekk mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha bu joxee ndigal ñu jëfe ko lu mu aaye ñu dakkal ko fi saasi léegi nag fonk def googu am ci euh, kilifa gi ñu dénk yoon wi mooy joxe ndigal daal ne man maak sama njaboot toll nañ nangam ci ab lim ñi topp ci moom sës ci moom di ay rakkam ku nekk wàññi sab lim murit bu ko gis li bi doxal képp ngay doxal bu ko defee ñu xam Touba exactement ñaata nit ñoo fi dëkk ñaata nit ñoo fi yeewoo xanaa xamoo góor gi taal ngolgol mhm. Touba mhm. li ñuy fay ndox yow mi nekk Ndakaaru di fay ndox SDE xalaatoo koo fay bés bu jot gàtt gàtt famille bi gën a néew li muy def ci ndox téeméer la le mois ça te fait quinze mille deux mois c'est mille man deux mois Dakar mille deux cent laay fay ndox mille deux cent ñoom Touba 30 000 ndax ndox mi ñuy naan. Mhm. ndox mi ñuy jëfandikoo pour seeni gan ndox mi ñuy toggee mënut nekk ndax ndox mi amul benn toppatoo. Mhm. bari na xorom bari na calcaire wóorut sax boo ko rootee ci robine bi teg ko 10 minutes nga gis na mu bëree poussière donc ñu defaloon leen ndox kay di leen fayeeku moo gën ci ñoom fukki yoon li Touba di def ci ndox te ndox mi amul njariñ te du ñu gis sax ndox mooma ndax baatu fii dëkk bi kenn du fi fay ndox jaru même bu fekkee sëriñ bi mën na ko coiffé wala kuréel yu mel ne Touba ci kanam wala municipalité bi ndax bëgg a jëfee li sëriñ Touba wax ci mat Matlabul Fawzayni mën nañ koo def waaye wat gaal yëgoo mais bu fekkee ku nekk daa xëcc booram. Mhm. li ñuy dal ci màggalu Touba de c'est pas la première fois te day continuer li ñu gën a dal bu ñu ci utul solution yu radical xool ñi seq ndox ñu mais mais man yaakaar naa ni Pape Sidi nag problème mu ndoxum Touba il faut mu réglé wu mais jàpp naa ni aussi. Touba lu mu mas a réglé yoonu murit ko réglé xam nga sëriñ bi waxoon na fi ndox mu jógee Lac de Guiers ñëw Touba mhm. c'est possible c'est possible c'est c'est c'est une solution lu mën a nekk la mën a nekk la te gis nga dynamisme bi am ci murit yi bu ko sëriñ bi tàmbali woon ñu ne cent milliards a koy defar. ah léegi léegi léegi murit yi génne cent milliards. est-ce que xam nga ne ndox bu neex. soriwul Touba saajo gii napp bu neex la am napp bi ndox bu neex la Sadio soriwul. Sadio gis nga 28 kilomètres daanaka 30 mboobu boo feggee am ko. soriwul léegi nag li des mooy ndox bi bu ñu ko bëggee régler dëgg dëgg. dëgg dëgg nag biir dëkk bi aussi dafa am yoo xam ne mënul ñàkk <coughs> le réseau. <coughs> réseau bi fi nekk nga xam ne daanaka xaw a suñuy maam la nekkoon. Mm. réseau bi il faut ñu xoolaat ko defar ko ndax bokk na ci problème ñi nga xam ne ñoom ñoo koy gérer ñu xool seen doxalin ndax itam sabotage yi ñuy wax itam il faut ñu xool ko ndax mënuñu màggal buy jub sabotage nag moom am na ku ma woo dem ni ma am na forage boo xam ne ay nit a fa dem yàq lu tax xel li ci tey mooy ah, ah. bu màggal di jub am na quartier yoo xam ne du ñu ma a ñàkk ndox waaye buñ ne màggal taj robinet tëj nañu loolu lan mooy la problème te xam nga bu fekkoon ne bu màggal gi jeexee suba sëj bi day continuer mais suba boo xëyee robinet boo doon ubbi mu tëj yu ci bëree bëri boo demee da ngay fekk mu am ndox kon lan mooy sabotage googu du ci du ci du ci du ci ndox mi rek ndax mhm. ci chiffres yu officiels yu ñu jot 1179 defkatu lu ñaaw. Mhm. la ñu interpellé. Mhm. way takk der yi sandarma yi ak alak alkaati yi ci biir Touba gi ñu jàpp fi yóbbu kaso ñu tolloog deux cent vingt mhm. ñaari téeméer ak euh, ñaar fukk ak ñaari doomu aadama yoo xam ne jamono ji ñu ngi leen tëj ci kaso bi li ko waral mooy. ñii dañu doon jaay sàngara ci dëkk bi. ñii yàmbaa lañ doon jaay ci dëkk bi yooyu xeetu ñaay ñaawteef ay nii ay nii yu safinatam safinatu amal daan daan démantelé mhm. léegi jamonoy màggal ba jamonoy màggal lañ koy est-ce que amul ay yeneen alternative yu juddu xuddaamu euh, ñu ngi fii xuddaamu mhm. presque mën nañoo wax benn euh, safinatul amaan bis la ndax ñoom ñoo bokk pratiquement ay mission li leen tax a jóg mooy euh, sàmm war may dëkk bi xëy na nag safinatul amaan am na ci benn jafe-jafe boo xam ne ah, am na fan yee ca ginnaaw xëy na moo tax ñu xawoon a deltu ginnaaw seen liggéey ñu bëri sax jàpp ne dafa liggéeyatul mais amul benn déclaration officielle buy wane ne euh, Safinatul Amaan dafa tas ñu ngi fii sëñ Modou Lo Ngabou moo ko jiite ba léegi waaye nag xëy na jafe-jafe yi ñu amoon fan yee ca ginnaaw ak euh, ñenn ci waa mairie bi waaw loolu nag mun mënul ñàkk des fois ci ak dund jafe-jafe yi waaye nanu xam ne dëkk bi dañ ko war a warmaal mhm. su su ma su doon su ma santaane ku fi dëkk da ngay maandu ci politique da ngay bàyyi politique ndax Touba léegi dafa bari lool politique. dafa bari lool politique. Mhm. te borom dëkk bi sañcu ko woon. Mhm. pour politique mhm. Serigne fii da koo sañc pour jaamu fi yàlla. daanaka ko fii doon fekk si sax. bu fekkee jaamu yàlla taxulaa jóg. waaw mënoon foofu nag moom danaa ca xam ka man politique nag am na nu ko nu ma ko gisee. xëy na politique bi ñu xam hmm. politique bi nga xam ne waxante lu ñaaw. waaw waaw xasante yàqante boobu moom vraiment. warul doon fii fii waroon nañoo am euh, ñun ñoo rénover politique ba nga xam ne nit ñi tax ñu bëgg. politique rek dans la doctrine mouride. am yar am teggin noonu mënoon nañ ko li nga war a sakku nga sakku ko. xam xam nga politique boo nee da nga koy wan ginnaaw carrément ah, il faut nga demaat si ñoom ndax ñoom ñooy falu li nga bëgg ñoom ngay dem wàll ko léegi nag jikko yi daal sénégalais xam nga dañoo yor ju xaw a garaaw waaw <laughs> maanaam damay bokk ak benn koñ wala ma bokk ak yow benn robinet mais damaa contre Pape Sidi mani naa dem yàq euh, forage bi ñuy jox ndox maa moom mais Pape Sidi day ñàkk ndox man ma ñàkk ndox mais booy iñaan bay iñaanee sa bopp nag sa intérêt warul tax nga xañ ñu sunu intérêt ñun ñëpp dañu war a bàyyi xel vraiment loolu mooy li nga xam lu am solo c'est une question assez bon mën naa bañ a bokk ak Baye Tall Ngol Ngol gis-gis ah. parce que moom il est radical ci politique mais bon je pense que Touba dafa am benn émission bu fi juddu woon mhm. boo xam ne da doon wax ne dëkk bi war naa am nangam amu ko mhm. dëkk bi di dénoncer ay dénonciation émission bi dem ba Touba yëpp di ko dégloondoo mhm. ñu dem ba nit ñi soppoon émission boobu autour de l' émission ñu créé ci benn kuréel tudde ko wenn tur di wër ci kilifa yi ne leen ñun dañu bëgg a def contestation comme Y en a wala comme ay ay m yoo xam ne amul ci dëkk bi biñ demee ba toog ak yi Serigne Fallou ji ñuy wax sëriñ abi bu Mbacké mu ne leen war may dëkk bi mayewut ngeen fi nekk ñaxtoo ka dox yow yow yoo xam ne li ngeen ñàkk bu fekkee volontaire ngeen bon émission boobu mu ngi tuddoon Touba ci kanam moo nekk nii. Euh, à la base loolu groupe WhatsApp la woon groupe WhatsApp. groupe WhatsApp la Fallou Ndiaye moo ko. créé woon. dugal ci ay kilifa. voilà nga xam ne dañuy xool. di plateforme revendicative voilà lu ñu gis ne lii. baaxu ñu dénoncé ko. voilà ba mujj nag moom mooy jur. plateforme revendicative boobu. Mhm. ñu yegg Serigne bu Mbacke mu Serigne Fallou mu ne leen. Mhm. bu fekkee nangu ngeen am ñaari million yi murit. Mhm. murit bu nekk weer wu dee mu joxe ñaar téeméer ci wërsëg wi ko yàlla jox ngir tuubaa jëm ci kanam weer wu nee di ngeen am ñaari milliards at mi di ngeen am vingt quatre milliards vingt quatre milliards fu ngeen ko dugal soxla faju fa jarut ñaxtu loolu la ñuy wax modèle économique murit mhm. jumaay tuubaa ji nawet lañ daan xaar ba nawet bi ndox mi taa ci dëkk yi inondation yi am wala dékki <laughs> ñu dem ŋàcc ko ñëw def ko ci ay barigo teg ko fii ci pénc mi mhm. bu nawet bi jeexee ñu fab loolu tabax ci ba fa seen ndox yam ñu xaaraat déwén ba nawet bi di dellu siwaat donc yoonu murit yàgg naa defal boppam ci dërëm dërëm yeeg ñaar dërëm ñaar dërëm et tout ça dafay dugg ci li ñuy wax kankan politique ban vision laa am est-ce que man ni may gisee politique ak ñii niñ koy gisee bokk na wala wuute na c'est très relatif et très large mais xam naa yow politique bi ngay wax mooy bu salte bi nga xam ne mhm. dañuy taxaw ne la kiy politique faw mu kàcc wala kenn du ko woteel ndax loolu dëppoowul ak ay jikko yu baax nanga def na noo tudd fàllu nan fàllu mbay sa yaay nu mu tudd sa yaay nu mu tudd sa yaay la sa yaay nu mu tudd Ndey Jaañ sa papa nu mu tudd fan nga dëkk fii ci Touba xamoo ko fan nga dëkk fan nga dëkk ci fan nga jógee màggal si ah? côté yi fàllu ah côté yi la wax xam nga lii moo tax man maa ngi doon sensibiliser fan yee ci rajo bi di wax ne ñi màggal si waaw xale yi nañu bind ay numéro téléphone dugal ko ci seen poche xam nga tey bu ñu ko defoon poche bi ngay làmb jël numéro bi nga woote wala nga bind ko ci yére bi loolu na nan nan ko xam ah wala nga dem mbaarum sëñ fàllu jeex na mën ngeen koo bàyyi fii ab diir ay mbokkam ñu ko gisee ñu ñëw euh, fii ci 2STV bi ñu ngi nekk buntu kër sëñ Mbacke Madina diggante euh, résidence Cheikhul Khadim ci sowub jumaa ji nga xam ne foofu la bunt bi ne voilà bu fi yàggee ab diir mën nañ ko yóbbu mbaaru sëñ Fallou demal demal demal nga toog ne kon xanaa daa mel ne ñu ngi may woo ci geneen wet gi ma war a dugg ci yow da a dem ci xaru bi de waxtaan wi neexoon na waxtaan wi neexoon na Pape Seye en tout cas la balaa balaa maa sëñ Fallou bi mën nañ ko am. waaw dañ koy am incha allah parce que nag foofa dama faa dem vraiment di ziar kontaan lool. ci ni ko Ablaye Sylla defare Ablaye Sylla bu Ecotra. Ah. yàlla na ko yàlla gën a yokk. parce que nag Serigne Fallou moom boo ko teralee. murit yëpp nga teral c'est important ni mu ko defaree. ab et puis dégg naa ma ngay defar bu Serigne Sidil Makhtar. mais murit xam nga Serigne Touba dafa bari ay milliardaires. yoo xam ne liggéeyal yàlla moom. daf leen a ñor daf leen a neex. ñu mel noonu nag. defe naa ni dëkk bi ay problème dina am na fi problème sax mënta ñàkk fen waaye jàpp naa ne Touba problème mu ndoxam dina mas a dem bee dootu fi am. incha allah lépp dina sotti bu sotti. sëñ Mountakha nee na bu nekkul woon université bi. voilà problème mu mi rek kay nekk yitteem. waaye université bi moom 36 milliards la faaw ñu noppi ko. wallaay waaw dafa am benn proposition boo xam ne souvent dama koy def. Touba te mu doon loo xam ne dafa ma ñor lool mu leer na ma ne inondation bi ñuy wax tuubaa mën na ci apporter solution boo xoolee Touba ni mu wëree ba am na benn mbedd boo xam ne 200 mètres la 200 mètres boo xam ne moo war Touba dem ba dellusiwaat damay proposé ne inondation yi fi am amuñu parce que amuñu ndox bu Touba fu ñu koy génnee nanu def participation collective boo xam ne taalibe ñoomu ñoo koy gasal seen bopp benn 10 boo xam ne moom lay yaatoo xóote ko benn 5 mu wër ñu defar ko ba mu baax ndox mi da ay tiwa ngay def tabax ko tëj ko ko tëj ko nga xam ne dafa wër loolu dafa am benn solution xoolal déglu foofu laa bëggoon ñëw <laughs> parce que màggal gi màggal gi yi ñuy jëlee ci yeneen dëkk yi mën nañ ko bay fii effectivement le modèle de Serigne Abdoulaye Borom Dër bi loolu moom vraiment proposition may porté le modèle de Serigne Abdoulaye Borom Dër bi à chaque fois maa ngi koy wax mbokk yi nañu ci bàyyi xel yaakaar naa ne nag dër bi ngay wax noonu Abdoulaye euh, fora kii bassin bi nekkoon euh, Daaru Rahman tey ji fees bay tuur bay yàq tool ya loolu mënoon naa ñàkk tey loolu kon lu may proposé la wax naa ko kilifa yi waxaat ko lu am solo ngi noonu lu am solo ngi noonu bëgg vraiment kilifa yi bàyyi ci xel 200 mètres bi wër Touba nañ ci gas benn 10 mètres boo xam moom lay yaatoo xóote 100 mètres ñu tabax ko tëj ko sasoo ko tey waa Kër Sëñ Fall boo ne leen na 10 kilomètres la bu ngeen gasal ma ko tëjal ñu gas ko loolu day taxaw waa Kër Sëñ Modou Moustapha noonu keneen keneen keneen loolu du taxaw Pape Pape portel eh, combat boobu noonu sama combat la ñu defar ko incha allah <laughs> jërëjëf jërëjëf dem biir incha allah Pape Sayer mu ngi dem ci jumaa ji dugg ci biir wan leen ko en direct euh, am nañ yeneen élément yoo xam ne war na jàpp waaw saa bàyyi maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay bàyyi nga ndénkaane ndénkaane bisu maggal waaw Pape Sidi jërëjëfati jërëjëf Pape Sayer Mbaye ci liggéey bi ak ci vraiment yar beeg teggin yi parce que Touba moom mënoo fee am correspondant bu yaree di ko bi daf koo laajut mais daal li may woo sama bopp di ci woo suma njaboot di ci woo njabootu ñëpp mooy Serigne Touba daal mu dee ànd ak moom ci ñàkk yar mu dee suta ànd ak moom ci ay saaga mu dee ànd ak moom ci ay kàcci ndax Serigne Touba moom léppam dëgg la léppam dafa dëggu woon te xale yi sëñ Touba bind na ci ñoom ay recommandation yu bari te fi mu ne li jaaxal ñëpp mooy xaw ma nag ñàkk xam-xam bi la parce que nag jàng dafa am solo boo amee jeunesse bu jàngul te ña ca jàngul bari ku jàngul léeg-léeg day day am xelam këf ko day yomb surtout nag bu nu tolloo ci jamono joo xam ne léegi maanaam loolu ñuy wax fen métier la ko ñeen ñi def dañuy jël fen wu rëy waxee dara du ca dëgg. dugal ci portable yi bu ko defee boo dajee ku mel ni alaaj taal nga xam ni bopp bi dara new ci bu ko dégloo rek ni dee xaaram partagé ko Pape Sidi fekk waa ji lépp à la base ay kàcc la jéem leen gëstu ji dëgg jéem a roy sëñ tubaa ci gëm boppam jéem koo roy ci nangoo liggéey gi jéem koo roy ci jàpp gi mu jàpp ci yàlla ba yàgg yàlla eggale ko fii mu ko eggale kon nag Pape Sidi xam naa rek ñu bu nu sawaree ba ca kanamee ndax naaj wi nag daa xaw a métti waaw daa xaw a métti comme yow bi Baye Fall nga man murit la ñun naaj wu tàng woowu nan ko baag bàyyi faal yi rek. nañ leen bàyyi climatiseur yi kon nag asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. jërë ngeen jëf yal nañ fi dajawaat déwén incha allah amiin yaa rabbi baay alaaji taal ngol ngol bokk na ci ñi nga xam ne sénégalais yi naw nañ ko wekk nañ ko ci liggéey bu am solo bi muy amal waaye dafa am loo xam ne maa ko yëgle woon ne leen dinañ dem euh, seeti sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew Pape Sayer dafay dugg ci jumaa ji ñoom Moussa MP ak ñoom pap yi ñoom ñu nga ci xabru Cheikh Ibrahima Fall lamp ba sama yaakaar yi tey ak ëllëg voilà bu ko defee ñu xool naka la ñuy def ba yéen ñi nekkul Touba jamono ji ngeen mën di dund en temps réel lii xew Touba déjà am nañu caméra boo xam ne mu ngi ci kaw ci njobbaxtalu kaar bi fi mu positionné wu daf lay wan en temps réel lépp li am ci màggal gi jamono ji may wax ak yéen euh, naaj wi tàng na lool ci Touba 10 heures 41 moo jot euh, dinañ leen yëgal ci kanam ne dañuy dem xool waa Angleterre yónnee nañu ñu vidéo waa Angleterre waa Bamako yónnee nañu vidéo waa Côte d'Ivoire yónnee nañu vidéo waa euh, Djibouti yónnee nañu ñu vidéo waa itali yónnee nañu ñu vidéo waa Mauritanie yónnee nañu vidéo ñoom ñëpp nag ay dongoy Serigne Touba ñooy dajaloo di màggal màggal yooyu lañ leen bëgg a partager en temps réel li am Touba te muy. njariñ ci ñi nga xam ne ñu ngi ci seen i kër wala ñu ngi ci waañ yi wala ñu ngi ci bernde yi wala ñu ngi ci toppatoo gan yi ah, lépp dara du leen ci ump bu ngeen desee ci programme mu 2STV yi Pape Sayer mu ngi dem dugg ci jumaa ji léegi en direct ci xabru Serigne Touba ñu jox leen en temps réel lépp li nga xam ne soxla ngeen ko yitte woon ngeen ko fa te dara du ci manqué duñ ci waroog dara maa ngi rappelé waat numéro bi nga xam ne ñiy màggal nekk bitim réew mën nañ faa yónnee seen ay ah, liggéey maanaam li nga xam ne moom mooy seen jamonoy màggal ak lañu fay def waaw ambulance bi ci ginnaaw moom foor na trop bàyyi leen ko mu jàll daa yàkkamti ambulance yi fi mës a jaar yëpp bi ci gën a foor bi moom xam naa ñi ko defar dañoo tëx ah ambulance bi foor na waay léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy senegal yi nekk bitim réew tey màggal bëgg a partager ak sénégalais yi fii seenu màggal dañ leen di jox benn numéro whatsapp ngeen yónnee ñu ci vidéo ci tey ci bisu tey ji màggal gi ñu xool la ngeen sañse na mu rafet na ngeen muritee na ngeen di berndee seeni gan na ngeen di durusee xasida yi na ngeen di joxe ñam wi ngeen togg ndax ay SDF ngeen koy jox lu mu ci mënti doon on va donner l'opportunité à tous les Sénégalais yi nekk ci mboolem fu ngeen nekk di màggal màggalug sëñ Bamba gi ñu def de telle sorte ngeen mën koo dund en temps réel en direct en attendant de retrouver Pape Sayer mbay ci biir jumaa ji en attendant de retrouver Moussa MP ak Papi ci fi nga xam ne moom moo di xabru maam Cheikh Ibra Fall yéen ñi nga xam ne yéen a nekk bitim réew mën ngeen a jokkoo ak ñun yónnee ñu seen ay vidéo ci numéro WhatsApp bi di 77 415 61 38 77 415 61 38 mooy numéro whatsapp bi nga xam ne ñi nekk bitim réew vidéo buñ ko yónnee ci kanam tuuti dinañ commencé jàllale vidéo yi ma baamu ne ci kanam tuuti euh, dinaa jàllale ay vidéo yi ñu jot a jot mooy bu Angleterre Bamako Côte d'Ivoire Djibouti Italie ak Mauritanie ñoom ñu ngay màggal màggal gu mag fii ci Sénégal ñu nit ñu ngi màggal ci dëkkub sëñ Bamba bi yéen ñi toog di seetaan des leen ak programme deux 2STV en ma wàcc naanum ndox ñëwaat fii. ñu continuer waat ba keroog ñuy dégganteeg sama gaa yi nga xam ne ñu ngi war a dégganteeg ñoom à tout à mën nga maa jox ci kaw de ñu xool Touba ni mu mel jamono ji waaw kay. bëggee soxal feex foo tollu am taw feex santal mam bamba bamba jërëjëf foo tollu am taw feex santal bëggee am nga neel ëllëg am texee

ña xam yónneen ca baawoon ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boroomam ña xam yàlla ña xam yónneen ca baawoon ba tey kenn jaaragul fa mu taqlibul wudili wala wadayi seen kafe gi waa ilaa Touba maam Serapha si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul Cheikh Aliou Touré Barikalla gërë ngeen Touba ñooy may ndox mi jumaay Touba. waaye man projet la Touba nekk nii.